بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله اكسنيل أقدار يلاو سلف بقاء بي لفيك يلاو بسم الله يكفيني أقدار يلاو سلف بقاء بي لفيك يلاو يا من له الأمر يا من لا شريك له وسوى وما للوعد لذيك يا الله وجاتك اليوم يا رمان منتجيا فوزي بما ستوسي دنياك يا الله أزاري مراسي أجو برامتي ألا ألاقي درا منك يا الله أزاري ملاسي أرجو برامتي ألا ألاقي درا منك يا الله مليك يميني وقل مزال يا مليك بلا إسان بن بيجو دين منك يا الله خدست سري يا قدوس متليا أني وأن كردي تدار يا الله أنظر نفسي سلم تكن يا من عيوب نفسي بتي منك يا الله أنت سلام لاسي سلم تكن يا من عيوب نفسي بتي منك يا الله يا مؤمن في جنة بدر ما كدار وابلي الأمن في الخلق ما يختار bu yàlla dogaloon nga mën ko yaa koy def duñ ko ndax bi ñu fi nekk ku ci ne da daan wax ne su ma yeewee ko ba am nangam ba indi fi nangam kon ko yàlla dogal na ma duggun loolu da buñ boolee weccal yoon yorit mu mën moo tax ñu nekk ci loolu ngeen defal ñu si ñaan bu baax a baax waaw barab ba bàyyi ko te la nga ko doon wuti di yàlla nga dem ba ba génn ca biti sam xel nekkaat ci barab bi nga jàpp ne ña nga fa nekkandoo loon doon ko wutale wala ña la ko ña la ko wuutu ña la fa wuutu am na lu ñu soxla loo xam ne jamono ya ngay ci daara ji daa nga am yitte ca loola nga ñëw jàpp fas yéene leen a jàppale ca wet googu loolu kon day mel ne ak ak fàttaliku démb la ak kóllëre lay lay nooru itam wala moom la te yooyu nag ci sunu boroom sàkku ci doomu aadama la bokk loolu mel na ne rafet na am am rafet na njortu ne njàngale mi ngeen doon jàng ci barab bi mokk na te it yaakaar naa dina soññi itam te sawarloo ñi nga xam ne ñoom ngeen fi ñoom ngeen fi fekk ndax bu fekkoon ne da ngeen a wan ginnaaw barab bi rek fàtte leen wala ngeen nekk ci leneen am na ci ñoo xam ne moom sunu borom may na leen pas-pasu la ñu nekk dégluwuñ ci xaaruñ ci kenn waaye am na ñoo xam ne nag lu mel noonu mën leen a yóbbee ak jaaxle bañ jàpp ne kot kon ñoom ndax li ñu nekk noonu la am waaye nag bu fekkee ne yéen ñi dem ba génn ba nekkatu leen ci lii nekk ci wàllu àdduna seen xel dëppaat ngeen dellu si ci lii loolu dana sawarloo ñi ngeen nekkoon ñu xam ne kon ñoom ci li ngeen leen bàyyi mooy mooy lañ war a nekk moo tax loolu yaakaar naa ab soññu ko la ndax ñun ñi suñu bopp rek loolu ak ak soññ la ci ñun ak sawar loola ci ñun itam ndax nit ku ci nekk loo nekk muy muy muy lu baax muy safaan bi boo ca nekkee boo sañoon am ci wétal lu baax nag moo rawati kon ku ci nekk di ci di nga ci di nga ci ci bëgg wétal te lii nag doy na ci aw wétal ñaan nag li nga xam ne mooy yéene ci li leen ko tax a jëf muy am yéene liggéeyal ci Serigne Saliou ngir am ci ay tuyaabu ëllëg loolu ñu ñaan ngeen daje cee moom ñu waroon dafa leen ci tuyaabu yu kawe ñu jëf ju toll tuyaabu ji ëpp ko te bu amee itam sàmmal leen ko ba yàq bañ koo laal te yàqali jëf jiit it ba ku nekk mën cee dugal loxoom te yàlla rek tax daje jeeg tuyaabu jiñ ci sàkku ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يا خادم الصلاة وكفر عنا سيئاتنا أولئك يدر أن منك حرام مليك يميني وقل مثال يا مليك بلا إسال بن بيجو دين منك يا الله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 تصر رم إلى الجماعة يا الله أنت العزيز في أطيب إيستي إذا يقال لدولد تكريم يا الله أجبرت لي إنك الجبار دون لقم كل انقضاء بلاسي اللي اخترته يا الله أجبرت لي إنك الجبار دون الإنقاذ ak leer ñun la jëlee foo xamante si nii bu dul woon ak moom du nu jar du jar dara kon nag ñu sant ko te xam ne lii mu boole tam muy liggéeyu Sëñ yi ñu gën ci cee góorgóorluwaat bu baax a baax a baax ndax ji fi kenn kenn kon nag loolu képp ku di ab donga rek xamal ne yow sëñ bi seere na say mbir ndax danay wax ne am na ci daara joo xam ne ay mbokki dong yu fa mas a am jafe-jafe mu di leen lijjanti xam naa ci ñenn ci donga yi ñuy dal ci ña ci des ne dañ leen a kalaameeg sëñ bi mu xamaloon ne leen bu fekkonte ne de. damaa tollu fo xamne luma lu xam ci yeen dañ ma dañ ma ko wax dañ ma ko wax ci yeen kon duma mat ci yeen lima don ci yeen waxon ni len kat ni ngeen xamne la ngeen denc ci fiene ci seen biiri gal la ci la ci la ci soufi gal ya man ma len ko gëna xam kon nak lolu donga donga bu nek rek xam nga ne señ bi kon mi ngi séré sey mbir ni suñ borom di séré waye nak lolu lepp dañuy wat rek di sante ndax eh, ginnaaw bi ko suñ borom moomalee jamono mu moom jamono jépp dafa mel na def ñoo tànnaat ñun ñuy ak njabootam ci biir kon nag loolu nañ ci delluwaat sant sëriñ bi te gën a góor góorlu ci li nga xamante si nii moom lañu doon moom la ñu doon teg te loolu nag mooy lii ngeen def ku leen gis lii ngeen indi te jaar ci daar yii ci gannaaw jëmaat ci yi ci kanam dana xam ne kon yéen yéen a ngi góorgóorlu te li ngeen mën yëpp yéen a koy def ndax lii ku ko gis xam ne ab xaalis bu baree baree ngi ci waaye jóg gi ngeen jóg koo gis xam ne temps bu ngeen ñàkk bu baree bare ngi ci waaye nag du ngeen ko réccu ndax sëriñ bi jar na ko kon nag yàlla na sëriñ bi li yéene yi te dolli leen kàttan te dolli leen ay xéwal dool leen fee yàggal bu baax a baax a baax te dolli leen wér ak i xéwal ndax dañ koy faral di wax dañ ne am murit moom ñett yi rekk a baax ci moom na gudd fan lool amug wér lool te ami xéwal lool waaw guddi gi fan bu ko defee mooy waral li sëriñ bi di tàmbul tàmbuli lépp ak ak ba muy àgg mu di ko fekkee wér gi mooy bu sëriñ bi soxlaa mu mën a jóg ñëw waaye xéewal yi itam mooy mooy lii nga ku ne xam na ne sëriñ Saliou donga yi ndandowaan yi sàmmaas gi li doonoon yéeneem ci ñoom mooy lii ngeen def mooy toog daan dagg mburu di joxe wala di dajj ay paquet miskit di joxe ak di toggi ndab di leen jox lool rek moo doonoon yitteem kon nag lii ngeen def xam leen ne yéen ca tànki sëriñ Saliou li Serigne Saliou jëmbatoon yéen a ngi koy suuxat yàlla na jëm kanam ci barke Borom Tuubaa yàlla na Serigne bi moo li yéen yëpp yàlla na ngeen eggale eggale gu kawe seen njort ci barke Borom Tuubaa waaw li nag Serigne bi sant na ci comme ni ñun niñ sant xam nañ ne bi sant na ci kon nag yàlla na gën a jëm kanam ci barke Borom Tuubaa jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaw kii بارك الله كل الإداء بنفسي لاخترت يا الله كرهتني كل في كبر بلا كل في يا متكبر تل كل يا الله يا خالق الخلق لغما أساء أبدا بالبر والبر يا الله يا بارع القلق خد لنا فدونا سن وخن لي الأجر للجماعة يا الله أنت المصور قل للنبي بسارا وصورا ليادو للمكر يا الله خلات لي كل سن من قد أتيت به لسأت بسكريا يا خضار يا الله moom dafa yéeme lool fii la daan toog de diggante bii de mosoo fee toog jàkkaarloo nii ñëpp di ko xool maa ko ko ba ngay kanam a kanam ba liñ yëpp ak ak liñ lépp yàlla suñu borom war ñu ci nañ bu baax nag xam nañ ne ñu ngi yokk bu baax a baax a baax waaye dañ ngeen am solo de ngeen am solo de am yàlla dogal na suñu saar yu yar leen jàngal leen ba lu baax la ngeen am rek ci moom ngeen ko amee kon loolu waruñu ko fàtte kon waaw saa yoon seen xel dafa war a nekk daara ji ngeen amee lépp waaw ah. lu mel ni itam comme li ngeen defit daa am solo lool waaw ah, ndax daa am solo lool ndax ci alxuraan rek ni maanaam ba dee saaral ci yoonu yàlla mu mel nga nga def benn pep suuf benn pepp dóob nga ji mu génn jëm ñaari ko bu bone génn téeméeri pep moom da ngay yokk rek daa jafe nag def yàlla taxalaaj daa jafe lool waaye saa yoo ko defee rek day gis ak yokk rawatina nag fi nga amee lépp waaw loolu yàlla yàlla jàppale bu baax a baax waaw solidarité daa yombut waaye moom mooy lépp ànd jàppoo daa joxe lool waaye saa yu ko defee rek dañuy gis njëriñ jamono bu nekk wax nañ ñu tubaab bi bi bi créé yi société dafa xool max nga xam ni boo xoolee yaram a gis lu gisoo ci benn matière bu leer bu ci nekk ba nag mu gis fa tabax lu rëy rëy xam ne boo bëgg rek da nga sonn bi ñu xoolee nag gis ni li ñu société ànd nekk benn jàppoo gi rek moo waral ñu mën a tabax loo xam ne kenn du ko foog ne maax li man lépp ànd ànd ànd ci benn moo waral ñu mën ko waaw yàlla yàlla gën leen baax maa ne dañoo xaw a bett sa waaye kon kaasu lan faa xamas wa abu xalam li xuuta asmaana laj yaa loo umuure وخوتلي لي رصايا رزاق يا الله فتات لي كل بعث بن كنت ذاتئا لأوليائك يا فتاة يا الله تلي للقيبات تعثت منتميئا أتى الأليم لاسي علمت يا الله خبرت يا قابل أسواء وانصرفت لخير نبياك الأدار يا الله بدأت يا باسط الأمال لي بريدا فاذكر مباستتي دارين يا الله بدأت يا باسط الأعمال لي بريضا فاذكر مبعثتات دارين يا الله قبلت يا قافل الأداء لي وما لو لخيرنا في بقف منك يا الله نجيتني من آفى الأعداء مغتربا فجود بكوني يا ذا عود وتسكيني أصبت عن الأذى بالمصطفى كراما هب لي تعالى ثم ما ترضى بتازيني لك سنا والرضا مني وما مدات يا من خراه الآف أعداء ينسيني بينت للحق في يوم الخميس لا دار كوني خريبا كاسي وادي وزنوني عن خصالك سف علو من تستري دياما وجود بسر عسيب من منك مكنوني طيات النفس فزيد تتيب أبدا وجه الحياة يا أجرا غير ممنون ليكن بجود وتكريم بلا سلب ولا حساب وسوخ لغير مخزوني كف الأذى سرمادا للخير سنخبالي دنيا وأخرى من خير مخزوني اجهل حسابي ما لخيته ومدى عند النصارى غدا يوم الموازين نجيتني اليوم منهم بعد فتوتهم فسيد نجاتي وجود لي بالمخازين سدني علوما وزيد سعي وزيد أدبي يا من من الهار والنارين تنجيني حبلي بقارك خارج لا تلو آما والتكفيني على ساق من وزيجيني وقيتني من بعد كونك ما سور ومسجون خني جميع الذي لم ترد لي سمادي يا من كفاني غبيسا كاد يرديني اكتب بسيدنا محمد من به للحق تهدي لماهيني فقلت حسبي يا ربي واكتفيت به ولست رادي يا غير الحلم والدين ولا مليكي لأنه جل يغنيني وينجيني أني أفوض أحوالي لما نجاسوا عن حال أنفسهم عجز المساكين أو كيف يبحثني حب العتام إلى جوار من درهم روض السياتين إن كنت ساسن أو كنت ساوتر دعوت سلعين خاب للراء والسين وهو الذي لا يوجسه وهو المكون ما ساء تكويني إن سات عجلا رن كان ذا عجل لو شاء تاجله يبتى إلهي يا من يلوم فلا تقصر ودا عزلي إذ لست من فقدتي دنيا بمخصوني إن كان عيب يسوع دون في تاميمه فذاك حيب نفي ثم ليس يوصيني إن كان عيد يسوح دن في أتامهما فذاك حيب نفي ثم ليس يوصيني إن كان عيب يسوح دن في أتامهما

te nim tege woon tànkam ci sunnas yonente bi ba muy ndaw ba nim làqoo masil waaja teggi ko tabem gaara woon taw daa dajoon ñépp ñam la xoom demal laaji koo laaji te lay wax ni ñam na Fallu kiimaan dem na xabbaana woo murit ya nekkoon fa moom naa leen na ngeen moyta Ya eh, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. mbokki julit yi mbokki talibé ñoo ngi leen nuyu baax di leen ziar di ñaanal ñepp jamm di ñaanal serigne cheikh serigne salih Mbakke Yalna na yok yokk ay leeram tax ñu si barkeem fi yek lepp lu dox ci kaw suuf rek sa bu nuyee yalla nako yok lu toll leer yam amul di ñaanal am serigne Cheikh salih Mbakke ak mbooleemi rakkam ñëpp rek njàgg fi loolu ba ànd ak wér ba lépp lu ñu yéene liggéeyal Serigne Touba rek ñu defee ko lu kawe seen jot di wax ne wax nga question bu am solo liggéey bi ñu ngi ko tàmbali woon 2015 lañ ko tàmbali woon mu doonoon ay ndaw yoo xamante ni ndaw yu bokk pas-pas bokk luñ bëgg bokkoon fu nu nekk bokk jëmuwaay euh, amoon initiative boo xamante ni dañ daan def siyaar boo xamante ni bi ñuy njëkk a ñëw 2015 oto bu ndaw lañ yoroon nga xam ne ni ñu yoroon ci miskit mi nga tolloon ci fanweeri goros ak ñeent xam ne ñaari daara lañ ko yóbboon bi yalla dogalé comme ko ñepp ñoo bëgg lu baax da koko waxit mu xémam liggéey bi yalla dogal ba tay ji fi may koy wax ñi ngi toll ci téeméeri goros ak ak juroom juroom ñaar fuk ak lu tek xamné tank tànk touba mom kanam rek la jëm euh li jëne ni tamit ak soppé yi soppé yi tamit ñi ngi ci jëf bu baax ndax Serigne salih doonu ne donga yi dongu la fi nekkalaan soppé yépp ndax ñi nga xamné ñu upp ñukoy baasal du ñuy donga ñi upp ñi nga xamné bo waxé ñu joy nekku ñoo ni donga ñi upp ñi nga xamné boko tuddé seen xol sédd nekku ñoon ay donga kon Serigne salih ñepp la fi nekkalaan dañuy wax ne ñi mu fekk seen i kër defar leen moo ëpp ñim nekk ci daara ji mu defar leen loolu kon ñu ngi koy leer di wax ne leer liggéey bi dafa dongay dañoo ne ci kanam waaye soppe yeeg ñëpp ñoo ci ànd waa muy waa bitim réew waa Sénégal ñëpp ñoo ci ànd di ci jàpp baax da ñu ngi ciy gis ak yokkute bu baax a baax a baax a baax ndax ku tàmbalee ci fanweer ak ñeent jël oto bu ndaw ren nga jël fekk la fi juróomi at nga jël auto bu mag ba paré toll ci témèr ak juróom fukki juróom bi toll ak juróom ñaar fukki goros lolu mi ngi jëm kanam li ci gëna yéme moy liggéey bi suñ koy jub si nga xamné dañ né tabaski ba xëy suba la ñuy jébal si liggéey bi manam da ngay dem ba nga xamné da ngay mel lu tit ci jëf ji da nga naan li kat yalla buri liñ amoon daaw dafa na ëpp liñ am ren waye li la wara xamal né li ma wax né ma saliw non lay def ay mbiram sa bo tité rek la lay won bopam da déggona ben histoire ci son bu ridwan Doy muy wax ne Serigne saliw dafa musa wax ne munuma leena fexé téré tere waye man na fex ba lu ngeen tidé du ngeen tek seen bët lool nak mom gis na ko sa bop ci ci leneen ak leneen rawatina liggéey bi liggéey bi sa bu jub see ba nga xamné da ngay yaakar né eh, da ngay soññee soññee gu bari ba nak ay lañ ko tangam lu day ñëw ba kawe njort ba nga xamanteni li nga doon yaakar sax da ngay am lu ko ëpp lool na soppé yi Serigne Saliou yi nga xamné ñi ngi fep muy Europe Dakar Mbour Senegal, fep lañ nek nga xamné dañuy jëf seeni jëf diko diko yone ñom yónnee leen ñaanal Oh, lepp li nga xamni yene nañ ko ci da bëgg ko ci yalla na Serigne Touba defal lu kawé seen jort mbollem donga bo xamanteni def nga ci da jëfoo ci tamit yalla na Serigne Touba yombal suñu mir ndax ku ci ne suñu bu fekkone ne ni nga ko bëggee la da ngay jël sa auto rek da gars gaay ñew leen dem dama yóbbu addi comme que yalla dogal na mënumul lon nak da buñ bolé euh, weccet wi mu man ko lolo tax ñu bolé ko da ko ci nekk ci ñun bi nga fi nekk da nga naan wax ne suma yewi ko bu ma amé camion miskit bu ma amé ni bu andi ko waye lolo ñu daan wax da comme ko ñing koy dajal diko andi kon am nañ ne ku camion miskit wala leneen nit ding ko andi lol dal motax di santi ñëpp di ñaanal jamm wa assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh en suñu mbokk bop yi ñi ngi leen nuy den siyaar bir en jéglu kaddu gi nak ko kilifa yi wax nañ ba pare mom dañuy wax li ñu dénkoon rek liñ ci mëna léral ñu léral ko liggéey bi nak ni mi doxé yo mëna yombut dajalam xaalis mom ku ne xamni ni sine da metti wa waye señ bi dimbali nañu ba gaay mom jaayante nañ liggey bi ko ci laaj rek manam yittem la koy def wa xaalis bi nak mom li ma laaj seex naa mooy ni muy lu féete walu Touba gi dañu defar ay ay ab groupe whatsapp bo xamni si ni ñi dajale àddee ñi ñi ñi bok ci liggey bi ñepp ci lañ bok léegi dañu jël sama numéro ak numéro sa numéro sëñ na Jeng ak numéro salilo lu melni ay Orange Money wala wari ku ko ci bëgg a sa àddi rek foofu nga koy envoyé koo ko ci envoyé rek mu bind noté teg. Ah, ba léegi ñu la laaj àddi yi nga xam ne moom la ñuy dajalee nu ñu koy dajalee maanaam dafa am yoo xamante ni ay jaayante la wala ay sas la wala yoo xamante ni nu ñu koy dajalee daal lañ bëgg a xam. waa àddi ji am na ay sas ci suñ biir ni mu amee ay sas ci suñ biir ni la amee waat ay jaayante sas yi mi ngi nekk 7000 jaayante bi nag. moom lépp lépp yaakaar naa douze mille lay doon euh, liñ ciy jaayante mooy douze mille yi ak sept mille yi nga euh, sept yi nga xam ne moom la ñu mooy mooy mooy teg bi ak cinq mille bi nga xam ne si ne mooy mooy mooy jaayante yi. maaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziare di leen jox seen wàccuwaay di ñaan suñu borom subhanahu wa liggéey bi nga xam ne moom lañu tàmbali ay at si ginnaaw yal nañu ko yàlla nangul te fulal ñu ko te lépp luñ ci séntu ñu am ci lu koy suñu jot liggéey bi yàlla ne suñuy suñu bunt si sëñ Saliou nga sëñ bi dafa nekk koo xam ne ay mbiram dafa yëmatul ci donga yi mën nga ne sax nit ñi ñoo si ëpp doole jamono ji ndaxte yàlla moo ko def ci xol nit ñi am na ñoo xam ne mosuñoo gis sëñ Saliou am na ñoo xam ne xëy na sax seen sëñ bi mu fi jóge fekk na ay tuut tànk lañ te nekkuñ bi waaye liñ fas ci liñ jëpp bëgg bëgg liggéey sëñ Saaliw maanaam dafa fees seen xol ba nga xam ne maanaam dañuy bëgg rek mooy rek awe si yëfi donga yi donc comme comme mbirum groupe whatsapp bi nekkul na dañ koo bëgg a yemale ci donga yi rek de déedéet ndaxte liggéey bi yemawul ñun si donga yi liggéey bi sëñ Saaliw ñun ñun la yoroon waaye comme que ñun xam nañ mission bi ñu santoon dañ ko war a décentraliser fexe ñëpp jot si fexe képp koo xam ne am nga yéene liggéey sëñ Saaliw jot si ba tax na nag loolu lu mel ne loolu kon whatsapp bi képp koo xam ne am nga yéene liggéey Serigne Saliou ubbil nañu suñuy bunt pour nga dugg si groupe whatsapp bi mu si daayira bi parce que gis nañ ne ñoom sax ñoo ëpp yéene ak ëpp bëgg bëgg gën a jëf ka ñun waaw ndax liñ yéene Serigne Saliou ak liñ ko bëgg a jëfal bari na lool lool lool kon groupe whatsapp bi moom lu mel ne groupe whatsapp bi moom maanaam képp koo xam ne gis na koo xam ne bëgg na bëgg naa bëgg bëgg naa bokk rek war nañ koo mën a dugal mu bokk si lii nañ ko lool ndax jamono ji waroon nañoo fekk xëy na ñu nekk yeneen itte yoo xam ne eh, yeneen la yeneen la yoo kenn mënut a gis tey rek bu la yàlla xirtalee ñu ñu jëm ci daara yi fab seen addiya di ko indi di liggéey Serigne Saliou loolu moom macha allah dañ ko rafet lool xanaa di soññ suñ bopp nag bu baax a baax a baax di leen soññi li wax lu am solo la loo xam ne fi nga ko jàppale foofu la bu leen ko bàyyi mukk ndax eh, ñu nekk yàlla bi liggéey Serigne Touba su fekkoon yàlla dogal yéen jaaru daara ji ngeen féetewoo rek maanaam saa su waxtu yu ngeen fa ko yeddi di ko ñom rek daa do sik ab liggéey sëñ Tuubaa rawatina nag bi sëriñ bi ba suñu borom dogal ngeen yiw ko daara ji soir fi fii soir fi loolu moom mo wax li yalla euh dara mënu ko gëna ko ñor njot loolu day tekkal ni yeen am ngeen ngërëm sëñ Tuubaa ndax ngërëm sëñ Tuubaa moko amé amee fa nga ko wut da nga koy gëna bëgg dang koy gëna a fonk kon na xamna ni loolu moom moy leen dal kon dal ñi ngi ñaan suñu borom katal leen xewal leen bu baax baax ba li ngeen def ngeen gën ko man jërë ngeen def sant nañ leen gëreem nañ leen alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh te it loolu dana tax ñu gën a góorlu gën a jàpp liggéey bi eh, gën koo fonk ndax ki nga xam ne moo koy fonk muy Cheikh Saliou coono yu ne daj na ko ci ngir ñu ñu am ko kon biñ ko amee war nañ koo jàpp te gën a góorlu te bañ di fàtte barab bi ci suñu xéewal te àdduna bañ ñoo eh, këf rek ci dàq ko ak topp ko ba fàtte fi ñu ko doon wutee ndax ñëw fi dina la dolli ay tawféex ak ay xéewal ak ay ngërëm te di nga ko rawee ñi ko ñi ko defut kon liggéey bi moom rafetlu nañ ko lool ba fa lu yam di leen ñaanal nag te ñaanal suñu bopp tamitam yàlla nañu sëriñ bi dolli dimbali dolli ñoo gàttanu dolli ñu ay tiraanga ak ay xéewal ndax sëriñ bi lii rek li ci bëggoon ndax jamono fii ma tolloo ci tar ak xat ak euh, xëccoo leneen lu dul dara ay xale yu toll nii xam ne daanaka ku ci am fanweeri at gisagoo ko ci ñaar fukki at ñaar fukki at ak juróom bari na ñoo xamante ni bañ jullee ba ci suba sax seeni xel lañ nekk fu ñuy dajee di fa fo ay soirée ay xeeti mbombaay kon bu yàlla dogalee yéen ngeen julli ba pare seen xel nekkul lu ji te pakk bu tedd bi nga xam ne du du ngërëma yàlla nekku fi dellu siwaat fi kon dina namm ab xol dana rataxal ab diggante te dana yokk pastéef ndax ñu xam ligéy sëriñ bi limi bari lim joon sonné lépp ñu am lu baax ta téye ko rek la woon waye loolu di fi delsi di ko nemmi ko nak dana dox suñu digënté ñu baña faté niñ jëfon ba am ko tay dañu ñu dimbali ci ñu gën ko mëna sam sàmm ndax dana lu yobbo bo boo tay ji ba bëgg a taar boo fi waté da nga gëna fonkat bar bi gëna fokalé bi gëna gorgol te gëna gëna gëna a gën a jàjju kon liggéey bi mom rafet gi ak baax gi ak war gi foo ko takk euh, weesu na ko kan nañ jàjjwaat te gën a pëstéefuwaat te xam ne luñ jëf ren rek bu déwétee ñu fas yéenee jëf maanaam lu ko ëpp te bare beet àttan na ko mën na ko ndax sëñ bi naa wax naan liggéey bi dee leen ma ci dee leen ma ci fasaaleel ndax attan lu ne te loolu it ñun ñëpp wóor nañu ne maase mu wér nam ko waxee wéree na noonu ndax ko ci ñee ci ñun bi nga fi jógee li nga man ci ay xéewal ak ay tiraanga wóor na leen ndimbal la euh, ak ak jagleel waaye wërta xaj sa ci sa sa dund kon loolu liggéey bu barkeel moo ko moo moo ko waral ki la dimbali bi nga man loolu lépp na kon boo ma waroo koy fàtt ndox bor bu dul may mat moom da ngay am pas loo am def ca rek boroo xam ne yaa nga ci te loolu mooy li ñu dal suñu diggante ak suñu saylu wóor nañu lim ñu lebal te ji ñu ko ñun buñ mi ran suñ bopp jël suñ deret di ko jox sax lu tax ñu ñu doot àqan kon war na yell na rafet na jaadu na ñu jéem a dabaata dabaatal ay ay bëggam ci lim ñu batale bàyyi bàyyi ko fi muy daaram yi ndax dara ñoru ko lenn lenn lenn lu ko ñoru du daara yi man nga ne amut kon nag liñ temaan ci wóotu ko ci ci ay xéewal donte wenn miski donte wenn mburu ñu koy def te bañ ko xeeb te bañ koo naw tamitam te gën a góorgóorlu ñaan ñu daje ci ndimbal te comme dimbali am nga yàlla nañu doole dimbali wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jëlani xayra xadimil mustafa fa innani axdimuhu bima stafa man sannani xayra xadimil mustafa fa innani أخدمه بما اصطفى أخدمه إلى دخول الجنة دار القرار والمنى والمنى من سن أنه يكون أبدا يرديه بالذي كقدمة بدا فقره الدلال والإدلال ينقاد لي منه بالعلال مدحته خبل لدى لبرولي مدعا ونا عن مثله كل ولي مدحته مدعا لدى ما ينبى مع عيوبي وكف الصنبا مدحته عند أناس قلوى مدحا كفاني ayda والبلوى مني إليه خدمة قد لازمت سمات روضته إلى الخيام عصمات رضي عني سبته الجيلاني عليه رضوان الذي أعلاني رضي عني سبته أبو الحسن عليه رضوان يخلد الحسن رضي عني سبته التجاني عليه رضوان مبيد الجاني رضي عني الخلفاء الأربعة فسرد المقربين المتبع من لم يكن عني يرضى فالكريم رضي عني ردا ليس يريم جزى الإله المصطفى خير الجزاء كما تقبل ووعد النجزاء فالإله مصطفى خير الجزاء كما تخبل ووحدا أنجزا صلاة من كرمه يا الخاني على الذي دون المراء القاني من سك في كون ابن عبد الله محمد نور الورى فلا الله عاف رسول الله ما لم يعلم إلى الذي خاطبه بكلمي محمد فرد يفوق التصنيع وفاق جمعا والهدايا مخنية من صنع أن المنتخى مثل الورى فهو خمر خلبه ما نورا درجة المختار عب المرسل باعتلاء درجات الرسل رسولنا أحمد لم يداها خطوة حود كان لا يداها القائد للجنات جف بها خلم ظلم النات ولا اللحين ونفاه الله لغيره وفاز من والاه لم يخف كونه رئيس الرؤساء وأبدا إبليس منه يئسا أخفاه سل عرس العسيم أبدا منصرفا منذ أبى أن يحبدا لم ينه نحو المصطفى والله طرده لخير من والاه لا ينتحل مدينة المنورة سوء حماها سلبقاء صورا أكرم رب الحرث المدينة إلى جنانه وفان دينا عدم ما بناه كل الله من جعل المختار عبد الله بلا انقضاء بفضل منك يا الله دار مرتباتي بلا انقفال بفضل منك يا الله رمات يا رافع دارني مرتباتي بلا لم بفضل منك يا الله عسى المثلثي لا إنسة خلا ويفسد واحد بل فيك يا علام أنت المسل لاسي صلى لي ستي ألم سوى الجنوة سيطان يا الله أنت سميع لاسي ناجت وسمانا وبالمسارات لي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 لخوت لن أسي من منك يا الله